après ñu defaloo featuring. ok euh, featuring featuring rek la woon wala kuru la parce que nee nga deux cent woon. Euh, la woon ah, parce que hmm. kenn suñu ñaar ku nekk amoon na sa carrière en solo. ok euh, ok leer na léegi dana ñëw tuuti yow ñu retracer sa carrière comme gars yu bëri dañ naan dañuy jékki-jékki dugg si rab léegi yow kan moo la influencé ba nga ni da ngay tëb un bonjour nga def musique. bon. mën naa ni man ba may def sixième laa laa tàmbalee déglu rap normal quoi ki ma ci inspiré nag mooy Dip Doundou gis parce que moom moom dong laa daan déglu ci artistes rappeurs yi ma koy déglu di ko topp mais daa dem ba benn instant mel ni virus bi daf ma dugg quoi. Hmm. may tàmbali di fontu di rap di bind ay texte genre léegi ma benn ba instant mais pourquoi pas man ma nekk artiste def comme gars genre yoo léegi ci laa tàmbalee dëgër fit nag di bind ay texte di bindantu ba sama premier jour ba may dem studio boobu ba ma làqatu woon sama waa gaale quoi ñoom ba son bi di génn. Hmm. menace bi ñoom si lañuy soog a yëg nii man dem naa studio ba génn son. mais euh, sa carrière fan nga ko tàmbalee fii nii na niveau de Mékhé wala fan ban dëkk wala. waaw fii la Ngaye Mékhé daanaka pratiquement fii laa tàmbalee lépp laa tàmbalee sama carrière aussi. mais fii ci kii. Euh, yan yan ñoo la influencer comme uh, yan yan groupe yi nga xam ne yaa ngi leen doon topp ñoom ñu ngi woon fii ci game bi di représente man gars yi rab lañ ba dem mooy soog a ñëw hmm. donc léegi euh, maanaam euh, bu doon wax donc yow sa sa sa carrière bi nga tàmbalee léegi euh, durée bi temps bi comme ñaata boo ko doon xayma deux ans la trois ans wala wala si man deux ans de carrière laa def parce que fin deux mille vingt et bi ci la fin deux mille vingt et un bi 31 décembre deux mille vingt et ci la ci laa génnee son premier son quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi dañu ñëw si next track bi 12 ans euh, yàlla na ma ah. ok léegi ñu déglu boobu wàcc. ok noonu lay demee bu la neexee mën nga ànd ak euh, sound bi ah. comme ni mu leen ko waxee tey moom moo nekk euh, suñu invité tey ah. euh, comme ni mu waxee bokkoon na si Saïfa Kajoor Jazz Jazz 2 donc moo nekk sama invité donc numéro 12 ah yàlla ma jëkk This one's hey. This boy. wow naa ni si kam nga doon xaar ma def ko ma jàddu ko jox la booy si ñaar ruus maa ngeeg ñi te gën sa mbir sax mais en l'air booy si personne na boos Wat sa song effet dara li jàll li jàll xanaa mooy li ay fer seegul sonal wax ju bëri ñëpp xam ne putain xamuloo nga jàngi waat nga waat dem defar waat espèce de colossar maa nigga foog bare pour dañ sa kaw waxaloo ñeme ñaat boo siis loo ñeme kaaw du fekk góor nga bul daw te saara gem doo mën a ndax dama gaaw bu yeboo nga pare sa dee dali na teg dafa metti teg si dafa tar pare tegal may limit bu duggee si man dina xam li xam si dunit guma dara di yóbbu sa fit dama defa fekk ak ay firit ku jàpp jàmm jiit kon jëm si kaw yow yàlla mooy cig dem lay taggal nga dégg man duma la pig ñoo ngi toj ma ji yàlla ma ji gars di wax si man yàlla ma ji ba teg laa mi baaxu si nit teg sa bët ndigal yoru ma si teg sa bët ca dafa gaaw li nga ma yéene yàlla bu ma daal li nga fi def mooy foog sa nopp am naa ko loo ma ji ma ji gars yi di wax ji ba teg laa baaxu si nit teg sa bët ndigal yoru ma si sa bët te dafa gaaw li nga ma yéene yàlla bu ma dal li nga fi dégg muy fokk sa nopp am naa fulu bu jëni ba yàlla ma jig ma jig ma ba romb jikki jël bombi lancé waa Palestine duma baal kenn sama noom Poutine pare tax Sénégal ngay wër Pikine li ma yor dafa bëri du ñuy def te dama jox ma am pour nekk king doo pare ba dafa gaay ci am sis dama bëgg a feneen ñi may laale fi damay teg si pare teg si seen bi ngay dugg teer bi muy wër fër bi dama nga sa bopp ba pare moom benn rappeur ñoom ñëpp laay fay sulli mel ni sapeur yóbbu Amérique ragalu ma ku ni carrière mbër fi maa ya koy lëmbee na man lañ gëm amul kenn ku fi mën a teg ay time nga naxe moo ma sax moo tax waru ma toog di nga pett di foo juróomi ko temps di nga expecté ko rab nekk kër bu may seetoo maa ngi sa kaw di nga may séntu ci suuf yàlla ma jik yàlla ya ma jik di wax man ya ma jik wax nit tegal sa bët ni nga yoruma shit tegal sa bët ca dafa gaaw li nga ma yéene yàlla bu ma daal li nga fi def mooy fokk sa am naa fa loo mu jóg nii balu fetal yàlla ma jig yàlla ma jig gaa yi di wax yàlla ma jig ba teg laa min baaxu si nit tegal sa bët ni nga yoruma shit sa bët ca dafa gaaw li nga ma yéene yàlla bu ma daal li nga fi def mooy fokk sa nopp am naa fa loo mu jóg nii balu fetal ok noonu lay demee dafa leer donc yàlla na ma jik léegi dañu bëggoon contenu bi ah contenu bi li nga wax euh, ci sound bi mais depuis boobu léegi gisuma yow benn yoon nga rab thématique comme supposons nga jël thème li nga xam ni réew mi euh, wala gars yi li ñu dul wala yeneen ak yeneen mais gis naa lu ci bëri euh, idée ko fi benn benn benn benn benn thème donc mën nañu wax ni sa bopp rek ngay wax sound yi ma déglu yëpp mën nañ wax ni sa bopp rek ngay wax. Euh, fii léegi dañ bëggoon nga wax ñu contenu bi lan lan lan lan nga bëgg a wax. bon yàlla ma jig ça veut dire loo xamante ni man son ba ma koy bind sax di prévoir di dem studio parce que mi ngi nii dama bàyyi ma fenn. nee naa ko son bi ak ba mu mënti demee day cartonné biir ngaay. parce que instant yii son bi dem na ba euh, trois mille huit cent bientôt quatre mille. quatre mille vues yàlla ma jig gars yëpp bëgg ko nag. booy booy romb ak booy sax moom mooy naa ma yàlla ma jéeg yàlla ma jéeg yooyu loolu mm. c'est que lu ma fil la xam nga. ok léegi ba ma dem gars yi bëgg ko tamit. ci ànd léegi léegi bi continue bi live and direct donc leen nga play ko live and direct ah bu defee gars yi dégg ko ñu xam lan nga lan ngay wax aja daanu si kaam nga doon xaar ma def ko ma jaadu ko jox la booy signal rouge maa ngeeg mérite sa mbir saak may en l'air boo fiis personne bouse fat sa sama fii dara du fi jàll lii jàll xanaa moo li war sa paxu duus efferse buñ sonal wax ju bëri ñëpp a xam ne putain xamuloo tous dama nga jàngi te nga dóori waar dem defarwaat espèce de clochard maa ni nga foog parapor dal sa kaw waxuloo ñeme ñaak booy fiis loo ñeme kaaw du fekk góor nga dafa leer donc euh, li ñu déglu dafa mel ni classe la. dafa mel ni classe la donc yaa ngi wax yaa ngi wax sa position di attaquer euh, gars yi. waaw hmm. euh, donc noonu la fay demee donc léegi parce que actuellement il fait vingt deux heures quarante huit minutes léegi dañuy ñëw sa beneen track bi am dis ku ñemee na ñëwaat. Ah. donc léegi ñu déglu boobu ñu xool lu muy wax acca. Ngaye FM. ok noonu lay euh, demee donc euh, muy sound 13 bi euh, ku ñeme na ñëw donc gis nañ que ni sound bi génne na ko donc génne nga maximum ñett ñett bon ñett sound gis nañ que da nga ko clip waaw ah, ñett sound yi ñett sound yi ñett sound gis nañ nga ko da nga koo clip bon nan la fa demee ba xam ANSYS dafa am ñu nekk ci ginnaawam wala dafa nekk rapport bi nga xam ni dafa am moyen. wala na la fa demee parce que gis nañ fi majeure partie des artistes yu nekk fii nii au niveau de Mekhe comme ni ma koy waxee saa su nekk du ëpp single la génne bien que am na ñenn ñoo xam ne individuel individuel ñu ngi génne mais gis nañ que ni ñàkkul euh, am si dafa am staff bu nga xam ne mi ci ginnaawam. waaw Amziz am na benn staff bu nekk ci ginnaaw euh, gars yi ñoom ñooy ñëw xam nga mën naa ne Ziz gang la sax ku ci mel ni bëgguma tudd tur ndax sama limee muy juum gars yi bëri nañ ok waaw mën ab groupe la quoi parce que bu nu amee benn projet son bu ñuy def ñu ñëppay teew mbooloo def ko. ok noonu lay demee léegi euh, dañuy déglu euh, beneen beneen track bi euh, ku ñemee na ñëw acca na ko daal ñu xool. Gain FM Eh, so so like the blue boy di retan So wagale sun ma gedd kontan Mala ko wana fesal estat Pa yaay ti ma japp woon seen concurrent Ñoom ñëpp mujjé nekk en bandi Ma waxal la ko nga koy dégg kon yàlla ma jiik Sa déglu sama vocalu ex dàq vitesse gën leen ci kon xam nga ni fi ante sa balu ne leer amul fi mbokk ko ci genn tax fi koy diriger ñu ñu fay wax ko du man fi ne ay son yi fi gis ngeen bi ngeen ci duma tim su du dama bëgg gis ci ma xaar sama ñu parce que nekk ci taxaw rek léegi xam naa dañuy indiwaat sound bi après nga tegu ci mais dafa am na mu force sound bi euh, parce que euh, am na am na am na am na fu nga xam ne man xaw ma exactement ba xam moom ba xam yow la njëkk a déglu tontu sound bi moo njëkk a génn bu euh, fufu ah. oui donc ça veut dire que bii gett na ko déglu na sound bi. sound bi déglu na ko parce que am na am na fenn fu mu waxee lu tax moom mu jékki-jékki mu jël que ni moom mooy monsieur le maire am na am na am na fenn foo waxee je crois foofu la tëbee. donc euh, kii ko kii ko si euh, saaw na mais tamit sànq wax naa la que ni euh, gis naa que ni yow tamit mën nañu wax que ni yow yow yaa yow yaa yàgg tooñ <laughs> parce que sa sound yëpp yu ma déglu yi ma déglu da ngay da ngay attaqué rek dangay ngay attaqué da ngay attaqué attaqué attaqué rek man man man man bokk man loolu laa gis sa sound yëpp gis naa que ni dangay ngay attaqué waaw ah, man la putingu game bi. c'est normal attaqué rek man lu ma fekk mais mais ñun lan moo ci leer lan moo ci leer que ni yow yow yow yaa moom game bi lan moo ci et puis en plus am na benn gars nee na ma euh, mënoo impro euh, benn gars wax na ma ko nee na ma nee nee na Amziz mënul impro donc léegi ñun pour ñun am lu nañu leer que ni Amziz am na nañu impro nee na Amziz euh, foo ko ubbilee micro ay texam rek lay génne mënul mënul jekk-jekk mu génne la ci trois comme mu toog fu mu toog nii ci instant bi génne lu nga xam mi ngi ci xelam loolu pour mu leer ñu. da nga may jàppale sa manager mi ngi nii boo fi génnee benn texte bu nga xam ne danga nga koo raet tey day day leer dama bëgg nga génn ñu lu bees tàq lu nga xam ne da koy improviser gars yi déglu ko ni parce que am na ñu naan euh, Amziz mënul impro donc ay suuf yu leer la lu leer. ay école rek gaa yi sànni mais di ngeen gis léegi. waaw ak léegi may ñu may ñu may ñu may ñu fi benn impro live and direct léegi bu bees sax mu nga xam ni. Euh, mooy loolu acca yaa ngi sànni écho ba xam mën naa impro mais di nga ma dégg yaa ngi mel ni kii impro damay impro nga koy dégg man la am gis booy maa ngi biir rajo Ngaye FM kon bis bàyyil fenn li may teg dafa leer maa ngi jàkkaarloog tëf connexion mu sol benn mbaxana bu ruus takk su benn chaîne ndiga maa ngi gis benn ordinateur gis benn micro ñu téeméer la ko ma fi wax meen ku ni mënu ma rap nag booy xanaa danga nga doof di nga déglu samay sonaan boobu dafa mënul rap yéen yéen la kan yéen fii loolu teg ma ne dàkk indi du ko def ndiga ma leen mën ku ne am si munta improfise booy toogil ne man dama raba raba raba waa ngaak yëpp nangul ma yéen da ngeen raba raba raba waa ngaak yëpp jéppi leen yee ku fi teg tànk na maa koy dégagé maa ngi putingu gembe maa yor booy missile bi kafa kajoor des deux maa ngi ko yëngal mais te keneen koo fi teg maa koy fag ndiga dégagé yee iPhone baa ngi may flamme gis buur su ñoom mu takk benn chaîne takk benn logo ci loxo bi meen yee sol benn ok non lay demee donc moom ngeen doon am foofu noonu live and direct sur la fréquence acca na ko dal na ko dal acca acca acca réew mi di tàkk képp ñëpp toog jeunesse bi amuñ espoir parce que ñëpp toog bu demee ba jeunesse bi jubali ci géej gi parce que amatuñ espoir seen réew mu ñu nekk yee da ngay jàng am ay diplôme doo xam loo liggéey da ngay dawa jakarta soit nga dem di agressé Macky Sall déglu waatam nga xoolaat jeunesse bi parce que li ñu waxoon ak tey bokkul meen Sénégal émergence 2012 ba léegi gisagun tous pourtant jeunesse bi ñëpp désespéré xamul fu jëm ba xoolee léegi kan mooy lan mooy sa ambition bu dul musique di làmb doo xam jeunesse bi la ñu bëgg fa musique fecc la topp di gën di teem mi kenn xamul lu mu doon jamono ji fu ñu jëm xale bu ndaw mooy topp di def yëfu bon parce que xale bu juddu dañ lay jàngal ay yëfu bon jeunesse su sénégalais boo matul espoir 2024 na ñoo ngi xaar ndiko doo leen fi toogaat benn bokk yaakaar wala benn tas yaakaar ñoo ngi xaar Ousmane Sonko ñëw ñëw changer système Euh, deme léegi dañuy ñëw ak euh, saonam bi nga xam ni euh, tegoon nañ ko sànq donc live and direct acca joxaan ma ko ñu xool acca Yo, na tres. Iwae, waka maboy, inere nkunyeme na nyo. Uonga mawonga sade, bole mo career kunyeme na nyo, kunyeme na nyo. Eh, sit na boy na ngamera, pali ange taka yo yange bunga de, deman go to gujine, erenga eh, ma de samari da glosa snobi. Tres, tres. Okay. Bitches, nigga. ok noonu lay demee am na ku nekk ci ligne bi donc léegi ñu ñu bàyyi ko mu dugg mu wax ak Amziz allo allo ok dem na donc noonu la demee léegi dañuy déglu euh, euh, Amziz euh, ku ñeme na ñëw donc 113 la ok ak ci na ko dal. Ngaye Eh, Amsis, Amsis, Amsis, Amsis Bro, eh boy di sa waa galle ma gedd kontaan maa ko wax na fesal estat yaay kii tagg digee par force ñi ma jàpp woon seen concurrent ñoom ñëpp mujjee en commun il faut ma job des na ndax bugguma dégg am ndeysaan dëgg dëgg may bandi ma waxaan ko nga ko kon ma son yi dem lu mu dugg mel heure bu may taxaw du déglu sama vocalu ex yaa ko fi xarañ ci son kon xam nga ni boo gis zameen du roo boobu fu dox dafa encaissé ba lu bopp ne leer fii amul fi mbopp yaa ko sam boobu bañ ko ci genn moo tax fii yëpp ma ngi koy dirigé zame ñu folop te loo gën ñu fay ma wax waxu ku du man te moo fi ne ay son yi cuune laa fi gis dégg ngeen bu yàgg bés bi ngeen jéem a classe gis kenn ci yéen du tim digga ñaan ko su njekk du fekkee dañ ma bëgg gis waxoon yéen grand yi too ci bopp koñ ma jéem xaar sama ex ñu gën a parce que pare gu ma fa génne nekk ci game taxaw di réew te fab nañ fef nigga nga ànd ak ñëpp nga jël leen lépp pare pëndal fem ni nga bokk ñu game folo nga dem a boy yi fis noo bàyyil ku ñeme na ñëw ku ñeme na ñëw ndeysaan waxoon na boy yi ku ñeme na ñëw ku ñeme na ñëw ku ñeme na ñëw ku ñeme na ñëw ku ñeme na boy yi ku ñeme na ñëw woo nga ma woo sa dee boole ko carrière bu ñeme na ñëw la ñëw ñëw ñu teg si game bi ma ree ko mu gaaw ni kat kat mu yëpp ko barsak ci biitu karsak réew ni mab raan ni maa fi teg tànk am di ngeen yàgg banque rab bi laay lekk kon defal tekk jamais mu nekk tëjal sa maa ma raw ñuy génn la paaka booy teg ko sa kuut ma la moo tax ma jàpp direction game bi métti di suus rapport perte nga tëddoo mos a jege ndey saan bay

ok noonu lay demee donc euh, li nga terminé ay ree ay ree lay ay ay def booy déglu ban sound kan kan moo la def ay ree. dëgg ma jaxaseeg booy <laughs> bon ah. sa bopp daal donc ma ngoogu. dafa leer donc léegi euh, gis nañ que ni génne nga ay sound def nga clip léegi projet yi euh, dañu bëggoon ba xam da ngay génne mixtape mixtape wala ci lan nga nekk wala comme da ngay continuer ci lancé bi. génne sound di maye wala boo xam am AMZIS am nay projet bon AMZIS am nay projet actuellement ñoo ngi waaj benn projet mixtape ñoo ciy liggéey maag sama staff euh, tamit ci lancé bu nekk nii di génne waale ay son yi tamit pour pour wane ñu gars yi ñu sont nous soon toujours présents mm-hmm. ñu ngi koy def di génne ay son comme nu ko daan defee ay son clip genre mais ñoo ngi waaj mixtape mm-hmm. et di di waa remercier waa Tatouline Studio ñoom ñoo produire euh, son ku ñeme na ñëw bi. Mm. parce que ñoom ñoo ngi def benn liggéey boo. xamante ne ok mën nañu wax que ni sound bi sound bi am léegi li ma bëggoon xam mooy ba xam euh, sa projet ak ñoom nga koy jox wax wala dafa am beneen label bu nga xam ni euh, ñoom ngay si label boobu ngay waaj projet bi na la fa demee. bon ñoo ngi ñun ñun fu ñu ko sentir rek mooy loolu. ah donc projet bi rek. donc signé woo signé woo man ak ñoo ngi job quoi. mais projet boobu ngay waxee est ce na wala dafa nekk comme sur le 3 rek li nga xam da nga koy waaj wala wala lan exactement. Ah, ah, en téléchargement la nekk. Ah, donc léegi donc léegi lan moo concret lan moo concret lu nga xam ni. Euh, Amziz mi ngi koy waajal instant bi lan lan lañ mën a wax que comme bu ñu la nee suba Amziz lii ak lii lay def parce que instant bi temps bi dañoo léegi. dañ ci profito tam nga walé ak ñi nga xamni euh jot nañ la jappalé sa carrière tamit ñoo ñëpp fekk da nga leen di remercier bon nga nga nga wax ak ñoom. waaw ñu ñoo ngi waaj benn concert décembre inshallah peut être ay le 27 décembre le 28 yooyu la lay doon terrain euh, central inshallah ñu koy wacc di wax gars autorisation lañ soxla ñu ci autorisation ak quelques soutien tamit na soxla lañ ko parce que ñu lay artiste lañ signé gun ci ben label genre sun staff lañ yor suñu moyen lañ yor bi demal sun bopp di wax gaay ñew jaabu ci si et di remercier ñepp ha bi nga xamni jaabu nañ ci depuis début bi ba léegi bàyyiwut di ñu gars yëpp suñu limee dañuy joom genre ok légui le dernier mot le dernier mot sans sama yaay rek ay ma mère quoi ok ok dafa leer euh amzis lan doon am sunu plateau mi ngi and ak SK ak manageram donc euh noonu lay euh donc légui dañ leen di jox inshallah dégg et puis et puis booy SK génn na benn son clip. bu daal quoi. Hmm. dem leen YouTube ngeen bind SK booy incha allah di ngeen ko am clip bu nice la génnee. Hmm. pratiquement euh, rap kalseel bu nekk Instagram benn page bu am doole sax publier na ko foofu noonu. gars yëpp apprécier rapport yu mag yi. booy bu am talent la nag te bëgg naa benn jour nga invité ma ko fi quoi. ok euh, noonu lay gars yi tamit ñu dem sama compte YouTube. am ci ah. parce que ay fan yu néew rek. waaw ñu delloo li ñuy jox. ok monsieur le maire dama xaar rek. ah ok noonu lay demee donc moo nekkoon suñu invité teg ci euh, couleur urbaine euh, annoncé na est-ce que incha allah anyway dinaa dugg sa compte ma xool euh, kii bi incha léegi après ma dalal la sama émission couleur urbaine comme ni ma leen ko waxee couleur urbaine amul benn frontière donc dafay nekk pour jeune talent yi ak artiste bépp pour nga xam ni mi ngi ngaay donc boo ma contacter donc da nga ñëw si plateau bi moom jaakaarloo na ni incha allah anyway dinaa ko invité. Euh, mu wax ak euh, Assane ok noonu la demee euh, waxtu bi ñu jagle loon jeex a càkk donc ñu ngi leen dox jox dig dag yi allah ba dimanche prochain donc ñu ngi leen bëggee di leen ziaru bëri heure bu may taxaw du déglu sama vocalu ex dàq bi des gëneen xarañ ci son kon xam nga ne boo fi zamenduro boobu fa dox dafa engagé balu boobu ne leer bi amul fi mbokk yaaga son boobu bañ ko wéngu ci kenn moo tax fi yëpp ma maa ngi koy diriger zame ñu folop te loo génn ñu fay ma wax la ko ku du man kan moo fi ne ay son yi cuune laa fi gis